yaa yónni woon Muhammadul Makiyo yaa Rasulallah dellu yabal Muhammadul Makiyo si Bamba jërëjëf nga bi guddi ak bëccëg ñun suñ jëmi boppam ñu ngi ci di di ko dox waaye li ëpp solo mooy na xam ne dëkk bii di Touba c'est spécial dafa am ay comité yu am yoo xam ne nii dafa dëppoog li nga xam ne mooy yoonu murit ñu mel ni Serigne Bass Abdou Khadir jiite ko loolu nag yaakaar naa ne ñun ak jàppale nga ca war ñi ngi koy ànd ak ñoom it di ci liggéey ba nga xam ne li nga xam ne dëkk bi laaj na ko ndax waxuma la jàppale Macky Sall avant tout mais ay taalibe lan ci sëñ Tuubaa lan kon jàppale dëkk boobu dafay doon loo xam ne mooy premier lu nekk ci suñu bopp te loolu it lépp luñ ci mën a doxal danañ ko doxal incha allahu rabbi. naka nga gisee gisee président Macky Sall ak waaw foofu loolu dañ koy rafetlu ndax bi ci njëkk Serigne Mountakha réussir na ko ci ñetti fan yi Ndakaaru ca yi sëñ Touba defoon ca Ndakaaru loolu sëñ Touba moo waxoon ne fii bis bu mu fi dellusiwaat muntaxaa xaalaay doon kon xaa boobee dellusiwaat na nekk sëriñ Touba foofu dañ fiy jàngataat jàngat ci leneen waaye li ëpp solo bu ëpp solo mooy ah Masaalikal Jinaan mbir mu rëy la symbole la boo xam ne ci lislaam ñëpp ko bokk waaye it la ca mën a séentu mooy diggante état nguur ak ak way politique yi. lu toll ñaari président amoon ay dig nga jubale leen ki ko fi wuutu ak kam wuutu nga jubale leen loolu ci lislaam waxuma la dara waaye wàllu juli ay juli lan kon foofu acte la bo xamni ni kilifa diine kep moko man ku mel seigne muntaha kon loolu dañ koy rafetlu ndax ñaari julli lan waye diggante dom ak baay bala benen bi ci des it ñoo bokk senegal bëgg senegal mëna jëm ci kanam kon lepp yo xamni war na no mën a jaxasoo liggéey ko senegal jëm ci kanam loolu acte bu rafet la ñi ci sante seigne muntaha di ci gën def nañ ko ba nga xamne mu ngi jëm ci Ousmane Ba Ousmane Ba day nit ko xamni ni dafa yëkkati ay cadeau wax ko ci yoonu yoon Sëriñ wax ko ci mam aladji malik wax ko ci ñeneen loolu def nañ ben plainte arrêté won nañ ko Gabon ba def nan beneen waxtaan yoo xam ne ministre de l'intérieur lañ koy wax ak au niveau du DIC yaakaar naa plainte bi mandaté nan yónnee nan li nga xam ne mooy mandat d'arrêt bi ñu koy suivi di xool ñu indi ko ci réew mi ba nga xam ne duutuñu nangu kenn di yëkkati ay kàddu di ko teg ci ku mel ni Cheikh Amadou Bamba Diome. merci beaucoup. yaa yónni woon Muhammadul Makiyo. yaa Rasulallah. dellu yabal Muhammadul Makiyo. si Bamba jërëjëf.